bienvenue chers amis internautes sur ce nouveau entretien de 3W senclic.com tey nag ñu ngi fii set si ñi nga xam ne ni cest à kenn dootu leen présenté mooy kër gi de Kaolack kër gi de Y'en a marre kër gi de Kaolack kër gi de Africa parce que artiste am na fi ngay toll dootoo nekkati pour sa waa gox rek mais da ngay nekk tey pour ñëpp tey nag ñu ñëw seet si leen fa yéene waxtaan ak ñoom ñu ngi fii ak kër gi. parce que bañ ak làmmiñ ñoo dëkk dinañ am ay wérante nangam mais yàlla suturaal na ak ay ñaanu waajur macha allah yàlla nañu ñaan yooyu yokk yàlla na sénégal yi continuer di ñu ñaanal ndax ñu continuer di mun di nekk ensemble pour mun di leen defal lii ñu leen di defal mais loolu yëpp boo ko gisee mooy am concept am. li ngeen def gëm-gëm la mais yaakaar ngeen li ngeen def mën na changer Sénégal. waaw sa Sénégal mi ngi am ay changement xëy na du changement total bi ñu soxla loolu il faut ñu dem ba jimi jamono fii ak mais am nañ ci résultat. résultat bi ci gën a ndaw gën cee ndaw ba gën cee ndaw mooy ne serait-ce rek nit déglu ñu li ñuy wax ku la may nopp rek dégg na la te ku la dégg rek mu nangu ko mu ñàkk ko nangu am na jiixi jaaxa boo indi ci biir xelam am nañ yaakaar ne du ñun nag ñooy changé lépp mais am nañ rôle bu ñu ci war a joué te nañ ko joué ba mu mat sëkk donc ci rôle boobu rek lañ nekk di ko joué du leneen. je je je me rappelle def ngeen ko ak ak euh, Ablaye Wade donc taxaw ngeen fi ak Ablaye Wade formé mouvement Y'en a marre taxaw ne carrément góor dafa doy des na donc ni ngay gouverner ak li kontaanatuñ ci léegi dañu bëgg beneen changement bu bees donc changement bu bees bi bu ngi fi ñëwee aussi tamit gis nañ seen taxawaay ci wàllu dénoncer ci wax comme seen engagement ak fi concept ak philosophie boobu mais est bi kilifa laa koy laaj kilifa à chaque fois ngeen ngeen chaque gouvernement donc depuis Abdou Diouf yéen a ngi koy combattre système bi ba léegi changé wul est-ce que jarul laajiwul toog seetaat ngay gisaat aujourd'hui la société civile a le devoir ou même le droit ou même sax c'est hyper important que mu allier d'une manière ou d'une autre sur